jàng xul huwallaahu ahad fanweeri yoon ak juróom maanaam 35 fois des na nangu ak julleem nangu kooram te lépp lu mu mës a def ci ay ñawteef des na ko ko soppil ay yiw te xaraf ci nekk des na ko ca tabaxal dëkk bu rëy te ajana te mel na ni ku leel mboolem xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa bi yépp mbokk yi ku ci bëgg yeneen ni leeral nga dellu ci xuratu ayni bu Serigne Souhaïbou Mbacké page 146 yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi